alhamdulilah kon mbokk yi ñu seetaan ci Baye Willane TV ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon ñëwaat suñu ñaareelu gan kii ñu toogal kenn du ko laajte muy Baye Talla Willane Nasirul Hadara nga xam ne moo jiite mbooleem taalibe yi li baay waxoon fa ab abdun tajalla sayidal kawni yaalahu wa ma nasabat xadaran li taaxal mu faqami nee na jaama ngi nii boo xam ne ab xidmaam xëy na mu def ko sangu mbindeef yëpp ñu ne Baye bu daan tukki day wax Serigne Aliou ne Serigne Serigne Aliou mu ngi tukki waaye seen Serigne mu ngi kon Cheikh mooy si sëriñ ñun ñëpp ji ci liggéey Baye Talla nga fekkee jamono gorum bant gor ay funux baas naaj wa di fëll tey nga xool tribune bi mel nii xool baas bi mel nii ñi moom ko àbbuñ ci dara lan nga yëg bi nga gisee baas bi ak tribune bi Baye Talla. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah eh, yëg mooy kontaan. Mhm. ak mbégte. Mhm. ndax lii xel daju doon ko. Mhm. ndax Cheikh Abdou Barham dig nañu ay dig mhm. booba lu nit dëgër dëgër mënoo koo gëm dëgg la man ngaa xam ne rek li mu wax dëgg la mhm. waaye am yëqiin nag bi ci yomb mhm. ndax euh, lii nga wax Rais Oumar Sagnane CREC bi bi bi wàccee dafa ne CREC bi mu xàbbee ay malaan ci Medina te ay banti funox lañ xam ñu laxas ko ci yàlla ji taw mu ne euh, tilim tilim ëpp funox bi des ci malaan yi mu ne te booba xamul nuñ koy delloo je ndax booba saabu xamut mu ne bi baas bi wàccee mu ne bisam boobu la njëkk a xalaat ci Medina gii e, loolu nag ñoom ñun ñëpp a ci àndoon mhm. ñu nekk da dem ci loolu ba mu yàgg mhm. ñuy dem kawlax dafa àbbi ay tip da dem Fatick dafa abbi ay tip mhm. man ak Tafsir Modou Diagne ak Keba Ndiaye e, loolu biñ ci départ nekk ci ba mu yàgg sëriñ bi ne nañ jënd tip waaw Cheikh Abdou Barham ñuy dajale fii daayira weer wu njëkk weer wu ne alxames di seen njëkk suñ daje booba ñi ngee teg mille sept cent ci mi mhm. ngay seetlu tey li nit ñi <laughs> joxe booba xat mi tout waaw mille sept cent booba xat mi mille sept cent teg ñu dajale ba jënd téeméeri tib mhm. baas ci benn yoon sëñ aari dikk gis ko xàbb ko yóbbu ko ba gàmmu nga tasee mu jóor ko këtam ah. ñu wax sëriñ bi mu ne lu ko doomi bàyyi xàbb du ko jëli <laughs> waaw ko defee ñu daal ko fa wëcc sëñ aadi gis nga mbaar mi nga gis ci këtam tib yooyu nga gis suñ tib yi ñu deeti ko fa wëcc deeti dem xuuti haat yeneen tib mhm. biñ xuuti haatee yeneen tib ba am nag ci lañ commencé débaas mhm. euh, ba yàlla def Ablaye Sidi Sow dikk mhm. dañu luyeel baas xat bu jot mu luyel ñu ñaari yoon baas ba atam deux mille vingt bii nag mu indi baas bi ne naa leen ko may <laughs> macha allah kon kooku mooy Baye Talla tey jàngal nañ ci taarix loo xam ne xamuñ ko woon mm. waaye rek ku leble benn ci yàlla yàlla fooy la fukk te leble woon ngeen ay tib mu dem jël si waatuwut te yàlla indi na baasub ay <laughs> million mu ñëw te du delluwaat gàmm gi am na ay wax yu ma ci dégg ñii ne bii mooy ñaar fukkeel ñii ne bii mooy ak juróom ndax mën nañoo xam ci ma gàmm gi ñaata an lañ ko defagum waaw mm. xam nga gàmm gi mm. suñ ko dalee ci ci sëñ aadi. mën nañee wax ne quatre-vingt-deux. waaw waaye gàmm gi dafa ala doom mi fi mu ne. Mhm. Euh, déedéet ngan gi ak gàmm gi. Mhm. ñoom lañ taqale. xam nga yaa ami baay koppe. moom la sëriñ bi mayoon gàmm. imaam may ñu ngan. ñu dem ba mu yàgg sëriñ bi jël ngan ngee euh, gàmm googa idd xaame ko. waaye gàmmu xaat gi nag. Mhm. moom xamu ban heure la commencé. waaye gàmmoog sëñ aadi moom. 82 mhm. la commencé. ci biit kët bay jaane. mooy gën daan def terrain école de. waaw ci biit kët bay jaane la commencé. waaw waaw ki rek lañ maye. Mhm. yaa astu siisi. Mhm. moo seex baay ki rek lañ ko maye. maye fa ki ñuy wax sirif xànjar jabar ñoom ñaar lañ fa gàmm googu moo mën na siiru dikkoon na. ak imaamin ñoom ñëpp. ñoo ñoo ñoo dikk. ñoo ma ci suba ga leen maye may maye yooyu. Mhm. Euh, loolu moom quatre-vingt-deux la. waaye yeneen yi ci des nag at bu mu sosu except xaw ma ko. waaye yaar yii nag moom fi ne fañ leen boole. fi ñuy tëjee rek mooy sa kàddu gu mujj. Hmm. looy ñaax mbokki taalibe yi ci projet Médina Baye Kaffrine bi nga xam ne. Hmm. ñu ngi koy gis ndax foog naa ne projet bi du waxuñ projet turbine. Hmm. waxuñ projet base. waxuñ projet lañ ne projet Médina Baye Kaffrine. kon foog naa amut fu muy yem. pour balaa kenn di gis ne ah tribune bi kat pare na base bi pare na mu tayal ci ci procès bi lan ngay wax mbokki taalibe ci procès yi ñu tëjee déedéet waaw procès bi mhm. bu doon bu doon bu doon football mhm. premier mi lañ xam waaw <laughs> waaw ndax sëriñ bi ñaari ñaari baas la bindoon mhm. loolu daf ko bind ne benn bi ngeen def ko euh, mu sax benn bi ngeen def ko mobile kon benn bi moo xamagum kon projet bi bu doon football premier mi-temps moo jeex deuxième mi-temps bi moo ci des arrêté wut wasalaam. macha allah kon mbokk yi ci Babilane TV premier mi-temps bi dafa mel ni dóor nañ 2-0. waaw nañ ñaan deuxième mi-temps bi rek. ñu dooraat yeneen 3-0. 3-0 nekk incha allah. waaw kon ñu ngi jërëjëfal Baye Talla bu baax. waaw takkusaan si yàlla nañ ci dugg si jàmm. amiin amiin amiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaaril azim